pour déterminer les modalités pratiques. D'ici là, j'espère qu'il mettra à ma disposition les rapports qu'il a évoqués et rendra public tous les échanges entre le Premier ministre que j'étais et les ministres concernés par les allégations. pour que pour qu'on lui pour qu'on pour qu'on puisse discuter de toutes les questions soulevées dans les dites rapports. Au-delà des sujets qu'il propose, bien qu'il soit que qu'il délimite lui-même les ce débat devra porter sur tous les aspects de la vie de notre nation Monnaie, économie finances publiques, pouvoir d'achat emploi liberté publique ak justice ressources naturelles inondations, éducation santé sécurité diplomatie etc soucieux des solutions aux problèmes de notre peuple je ne peux que me réjouir que la politique soit une confrontation d'idées Amadou Ba Doudou la Ousmane Sonko mu euh, débat public ne entre nous ñaar am ay surprise yoo xam ne dina am ci biir yu ci mel ne euh, dégg li mu ko wax ne na nañ ko teg lépp ci débat d'idée bu mu doon loo xam ne peut-être ay ay yenn yi la waaye tam nee na moom bi muy nekk premier ministre échange yi mu amoon yëpp ak l'ensemble de ses ministres surtout ñi nga xam ne dañoo concerné ci allégation yooyu mi ngi ñaan ñu euh, rendre publique lépp ñëpp gis ko waaye Ousmane ko tamit nan nangu ñu waxtaanee tous les aspects de la vie yi nga xam mën nañ cee xam lu leer ñu am muni jawab du am du du munuma fi ne li suba tay tey japp aw dafa am. non débat bi du am. dama bugu nga relancer man ne ma lutax nga. ne débat loolu kay dañ la koy laaj. wa kay no wax ko. nan di yow débat bi man sax man yow munuma comprendre ñaari mag lancer wante seeni mbir ba japp seen yef nga ne débat bi du am. lutax wa lutax du am. kañ na ma Doudou Coulibaly. lan mo tax débat bi du am. non waxo ba léegi. Doudou Coulibaly lan mo tax nga ne débat bi du am. na ko dal waaw gis nga débat bi mënta am ndax débat public day jall si benn support support bi ñu koy support médiatique dudu may ma kii di waaja mer nii bugguma mu mer awa faal hmm. maa ngi lay ñuy di la ziar hmm. léegi chaque jour yow laay njëkk a tudd man nee naa leen yéen laay topp man duudoog addis mi topp ma leen de yéen a leen di topp mais man en retour maa ngi seen ginnaaw yéen laay topp awa faal tudd naa la maa ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal ay ca duud doxal waa classe bu tuddoon Awa Fall. Hmm, est ce que du moom sax. ah yow Awa Fall saf nga nag. ma tudd Awa Fall. ah hmm. luy safut kon. benn tali. saf nga saf nga ci plateau bi moom ñu ngi gisante de. Awa Fall waaw léegi ñu gisante Awa Fall. macha allah fees nga fi dell. dégg <laughs> mhm. euh, léegi. waaw lii lan la aussi. ngaa ñuy bugg mu tontu. lii de lii de lii de cat la dégg dégg nga. xam nga ko wax. ndax ma ne la débat bi du am. loolu laa soxla fi nee naa la débat bi dafa war a fi ñu koy wonee day nekk support médiatique. médiatique waa ñu ngi ciy tudd ITV e wala Sen TV sax. léegi. Mhm. xam naa ni ca cappaandaw ga. Mhm. kenn du nangu ñoom ñaar ca ka koy organiser. dégg nga baax su gaa newee. kii moo koy organiser waa Kër Sonko ñu ne non ñii dañ ñoo contre <laughs> dégg juba je mhm. vois Ba ne bu bu newee kii ñoo koy organiser waa Amadou Ba ne. Mhm. ñii dañ ñoo contre. cest à yi ko war a animer. Hmm? Mhm. ku nekk dina jéem a xool petite bête buy teg keneen ki ba nga xam ne loolu c'est impossible mu am benn boobay un. Ah, de deux ah date bi li ko yàq mooy on a vingt et un jours de campagne. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko moom jàpp nañ la vingt sept ak le vingt huit. Mm-hmm. loo koy jàppal date. ah boo ko jàpp non boo ko jàppalee date. ci pose ci pose vingt et un jours. Mm-hmm. parce que négociation yi mooy il faut que ñaari parti di toog. yaa ngi dégg. di expliquer di kii mais boo nee fii ak le vingt sept le vingt huit mooy dimanche wala lundi yaa ngi dégg. mais mais mais. mais discussion yi mën na bañ a aboutir si diggante bi beneen bi Ousmane Sonko nee na si lii la ñuy waxtaan. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. Amadou Ba ne ko non loolu day yomb trop élargiral du yow yaay tànn sujet yi. Mhm. yokk si sujet tel. yokk si lii yokk si lii yokk si lee. loolu mu ko laaj na xeetu DPG la Ousmane Sonko du ko nangu. Ah, yow waxu DPG nga indi waat waaw ah, waaw xeetu DPG la. ok. vision si loolu yëpp. Mhm. Ousmane du ko nangu. Mhm. donc lay doon yaa daw maa daw yaa ragal ya maa ragal yaa tàppet maa moo tax man la débat bi mhm. di nga duudu li mu wax. man de dama nga nga baal ma déjà dama la koy résumer nee na côté ñi nga xamante ne moom mooy euh, groupe de presse bi war a accueillir débat bi bu ñu ko euh, choisir Sonko ne ñii dañ maa contre. wala Amadou ne ñii ànduñoo ak man journaliste ya ko war a animé dem léegi nag li nga xam ne Sonko ci la Ousmane euh, Amadou ci la woo Sonko mooy ni euh, li nga xamante ne mooy genre DPG rek la mu doon bañ def ko assemblée nationale moo tax mu jàpp ne débat bi du am. Fatou jéppi naa la. da ngay d'accord. Fatou